waa kay ngeen jëf euh, bokk téléspectateurs yi àndaat ak yéen wéy ak yéen fii ci ëttub Cheikhul Khadim di dëkk bu sell di daarul moxti ni ñu leen ko waxe woon euh, di xeeñtu jeexiti maam Thierno Birahim Ndaamal daarul moxti di def ak ñoom ay ziar di waajal bis bu tedd bi wala boog ci bis bu tedd bii nu nekk di bisub maam Thierno Birahim Ndaamal daarul moxti nu ñëw nag ci koo xam ni euh, suñu diggante ak moom di télévision ma fàttiwonal Bichri yaatu na lool muy sëriñ Xaadim Mbakke docteur moom sëriñ mu Muudu Awa Balla yaakaar naa ne euh, képp kuy bàyyi xel télévision ma fàttiwonal Bichri xam na ne jotaayoo na ak moom jotaay bu yaatu ci jàmbaar ji nga xam ne moom la ñuy fàttaliku tey di maam Ceerno Birahim Daamal darul Moxti maamam tey nag bokk yi nu si ak moom ci ab ziar waaye tamit bëggoon kàddu leeral tuuti ci bis bii nga xam ne moom la ñu woote fii ci Daarul Muxti lan mooy sababu bis bi di bis goo xamante ne bii dañ ko woote ci ëttub maam na Birahim waaye sababu bis bi waral nu woote bis bi moom la bëgg ànd ak sëriñ bi nag am ci leeral tuuti kon nu maa si déglu auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani allahuma salli ala sayidina muhammadin nabiil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi salaatan wa salaaman wa barakatan tahabu lana biha saadatan la shaqawata baada wa akbaru dan minka la sota baadaho rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hal uqdatan min lisani yafqahu qawli barke cheikhul xadim mbokk jullit yi mbokk taalibe yi maa ngi leen di nuyu di leen ziyaare eh, di leen ndokkeel ci bis bi di ñaan suñu borom mu may ñu teew ak at yu bare bari barke xaadim rasul barke maam Cheikh Ibrahima waaw bis bi day moom euh, euh, mat naa mat naa xam ndax xam nga histoire dafa am lu ñuy wax chronologie maanaam dañuy am lu nga xam ne mi ngi xew ci fajar am lu xew ci tisbaar am lu xew ci tàkkusaan soo leen xàmmeewul nag boo jëlee li xew ci takkusaan yóbbu ko ci tisbaar da ngay daal di juum fi mu toll boo xoolee màggalu ko Daaru Salaam maam Cheikh Anta radiyallahu anhu ci diggiw tabaski la kon gée ko jiitu te daaru salaam la borom la sëñ Tuubaa jóge ñëw ñëw daaru manaan fi ci fekk si maam Cheikh Ibrahima kon boo xamul histoire da ngay defee ne bi mu ñëwee daaru manaan foofa la gise bi déedéet sëñ bi mu nee cëpp ndar rek euh, ci la yónni woolu borom daaru wax nañ ne Cheikh Isa radiyallahu anhu moom la yónni wax nañ ne itam loolu it man ki ma ko wax ku ma doy la waaw ndax ci woy juróom la ko déggee euh, euh, wax nañ ne bis bi jënd na ci ñaari fas hmm. bi mu jógee ndar jëm daaru marnaan booba daaru naan daaru minam la tudd hmm. jëndu fas dawal ko ba fas yu sonn mënatu dem wocc ko jënd weneen hmm. booba sonn wocc ko dox ak tànkam door a ñëw daaru daaru daaru booba la tudd ci gàttal daal bi mu ñëwee ba gisee ak borom daaru ñu topp guddi ñëw kel booba saxaar gi ñaari saxaar yi bi jógee Saint-Louis ak bi jógee Dakar kel lañu daje 10 heures ñu jël ñoom gi jëm Saint-Louis bi ñu àggee Ndar euh, moom nee nañ dafa dafa dox ak tànkam boroom daaru ak ak àndalool mu àndaloon jëlal leen watiiri sareet moo leen jiitu ci sëriñ bi naka mu àgg sëriñ bi ne ko ana Ceerno mu ne ko ñëw na mu ne ko sëggal yow ñaanal la wax nañ ne bi borom du ñëwee bi mu nuyoog sëriñ bi daa daal tuur ronkoñ waaw nee nañu euh, bi mu tuuree ronkoñ sëñ bi daal di xaalu tàmbalee tari alxuraan di tari di tari di tari ba ñu calmé ñoom ñaar sëñ bi daal ne ko foo nekk léegi xam nga juróom ñetteet foo nekk mu ne ko am na àll bu nekk diggante Touba ak euh, Mbacke Bawol falaa sañcub dëkk tudde ko daaru minam sëñ bi ne ko waaye ginnaaw am naag daaru minam tuubaa day jege soppi ko tudde ko daaru mën naan kon bisu màggal gi mën nga wax ne mooy bis bu ñu joxee aw tur daaru mën naan gee ca tuubaa te daaru mën naan gee ca tuubaa moom lañ tuddee daaru mën naan gi ci eh, daaru mus gi ci cilmaxa waaw bi ko sëñ Cheikh Balla sañcee ci la ko borom daaru ne ko tuddee ko sama daaru mën naan gee ca tuubaa waaw kon loolu ndax ci ci ci ngay loolu ci ngay xam ne ndax sëñ bi ginnaaw bu mu jógee ndar la door a ñëw Sanusi boor fa door topp nag biir réew mi ba agsi Daaru Salaam hmm. boo xamul nag ne gise bi ndar la woon euh, bi muy door bi sëñ bi door di agsi rek te te Daaru Salaam euh, ak agseegut te goog daaru ñëw da ngay daal di jaxasi moo tax moo tax histoire chronologie bi il faut nga respecté ko mooy tax loo jaawale kon mooy bis boobu waaw waaw gisee noonu sëñ bi itam euh, daal di ko jox ndigal ci ñu defaraat kër ga nee na ñaari buum la ko jox ne ko fa ma nekkoon di jaamu yàlla sunu borom dafa maa xamal ne jéggal na barab ba jéggal na ma te mënuma koo indi ma natt néeg néeg ya ma newoon ne ko benn buum bi bu kaare la ne ko boo demee nañ defar ay néeg te na toll nii diggante néegi yi mu am yeneen bu buum gudd na ko na néeg yi soree nii na ko nañ ko def ñeent téeméeri xasab kër ga na nekk ñeenti téeméeri xasab maanaam mooy 200 mètres rek ndax xasab mooy 50 centimètres mu euh, borom daal daal di ñëw nee na bi ñëwee ñu di ci waxtaan waxtaan ñu ko war a defee nangam nangam ba ñu ne nañ ko tabax. nee nañ loolu tax Namsa Keita moom mu ñuy wax moom ñu defloo ko wax nañ ne matériel bi euh, Tiwaawan lañ ko doon jëndee matériel bi ñu doon liggéey barab bi waaw kon euh, loolu moom mooy euh, mooy mooy mooy bis bi te loolu mooy sew-sew bi nga xam ne ci histoire mën ngaa mën ngaa xam histoire bis bi xam ne mooy bisa mi gisee te doo ko xam man ginnaaw bu ma ci ay ay gëstu ak waxtaan ak ku ku wér ku xam moo tax ma xam sew sew bii sax hmm. ndax da jaaxal waaw ndax Daaru Salaam màggalam ñëwagul te googu daaru ñëw na te Daaru Salaam la suñ Tuubaa jógee ñëw daaru ma naan ci maam Cheikh Ibrahima waaye fekk na gisee nañ avant loolu ndax hmm. Hmm. kon loolu moom mooy mooy mooy mooy mooy mooy dat beeg ñu gisee ak li tax maanaam li tax nag ñu def ko ci bis bi moom mooy euh, mag ñi ñoom dañ daan fàttaliku ku fi jóge di di ko defal màggal ci bis bi mu fi jógee wala xëy na ca bis bañ ko saraxale waaye Sëñ Fàllu moom du ko da ci àndutoon daan wax ne bisu bisu naqar mënta nekk bisu mbégte waaw màggal gi njëkk nañ ko def euh, ñaar fukki fan ak ñeent ci Chaabaan Euh, euh, ngir mu mu mu dajeeg bi fi borom daaru jógee waaye sëñ Fallou moom moo ne yooyu ñaari ñaari bis yooyu mënut a ànd nañ ko def bis bi nga xam ne ci la borom daaru gisee ak sëñ Touba xam naa ne bis boobu ñoom ñaar ñëpp a bëgg waaw waaw loolu moo indi sopp gi. Hmm. sëñ Abdou Khoudoss radiyallahu bu ko daan wax day wax ne ku fi nekkal sëñ Touba boo ko soppi woon ñu soppi ko waaw ko it ñu hmm. bis bi moom bu baax la waxuma la nag sax. muy nus saabaan nga xam ne bis bi jëm boppam rek am na ay ngëneeli boppam hmm. kon ci leeral mooy bis bi sëriñ bi jugee ci tukki bi te dajee ci ak maam Thierno moom la ñuy fàttaliku. waaw moom moom la maanaam moom bi mu ñëwee ndar mag seen ndar da koo woolu waaw bi mu ñëwee nag bis bi mu giseek moom foofu ñu wax lii ma la wax nii mooy bis boobu waaw mooy bis boobu. Mhm. kon xanaa euh, ab tënk rek ci ci ci ci borom bis bi itam di maam Thierno Birahim Daamal Daarul Muxti waaw maam Thierno xam nga moom man bii laa koy wax fi ma leen màggal buñ ko dee def yetti yëf moo tax wala wala ñetti yëf war nañ war nañ ko caa fas ba ca jiitu mooy ñaanal euh, koo bëgg ku fi nekkatu moo xam sa sëriñ la moo xam sa woy jur la waaw ni ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxee ne ku fi jógee nit bu fi jógee aw yiwam day dàgg am def ci ñett lu mu def ba fi ba ci doom ju baax ju koy ñaanal ginnaawam waaw eh, kon loolu benn la ci mooy ñaanal koo ko koo xam ne sa way la koo xam ne kii dalaa defal yiw koo xam ne dalaa gindi teg la ci saraatal mustaqim jàngal la liggéey ah, boo dee mbokkam mu wutal la barke waaw sàkku barke ci sëñ Touba yàlla ak sëñ Touba sédd la ca waaw ñu ñaanal ko loolu mooy première point bi deuxième bi mooy euh, fàttaliku maanaam maanaam jikko yu baax yooyu ñu amoon ndax léegi sëriñ bu baax bi fi jógee léegi di sëriñ Alioune dégg nga li mu wax nee na sëñ Touba 42 ans bi muy dem la am te booba jaamu na yàlla ba àgg ci yàlla bay defaree ba jaaxal tubaab yi bañ di ko fi jëlee maam Cerno Birahim itam yar na ko def ci moom li mu war def ci moom ba lépp lu war a nekk ci moom nekk ci moom te 30 ans dong la am mm-hmm. nga xam ne bi borom daaru bi sëñ bi demee borom daaru des fi yor njaboot gi yor mbooloo mi di jàngale jàkkaarlook tubaab yi jàkkaarlook ceddo yi jàkkaarloog bokk yi ñëpp di ay noonam mm-hmm. dafa naa ak ñaar dong la am loolu lépp mu di ko réglé mm-hmm. ah? kooku fàttali ko ko ba xam ne mm, jom lu am solo la waaw man damay wax ne mag gone amut gone gone koo dégg maan gone la ñaari li ci ëpp kenn ki day nekk màggat mënu nguur ne màggat na kenn ki day koo xam ne amul jom mag la waaye lu ne mën a jotagul ci man gone la waaw léegi lañ koy wax maa ngi moom Usaama bi ko yontu bi sallam di ko def xaayit mu war a jiite xeex bi nga xam ne moom lañ mujj jeysu bi mujj bi bu yontu bi sallam mujj euh, organisé boobu 18 ans la am waaw war a war a yilif sidna Abubakar sidna Omar ñu di ay mag ñu am 60 ans waaw waaye discipline moo tax ñu nangoo topp ci ginnaawam moom itam jom ak ak ak ak ak njàmbaar moo tax mu am 18 ans ba noppi mën a jiite lu mel noonu xam nga loolu kon euh, jom mënees na ko cee jàngee mënees na cee jàngee euh, amaana buñ la dénkee dara nga sàmm ko am na ñuy boo leen dénkoon xaalis buñ ko tegee fi barab la nga leen joxoon moom lañ lay delloo am na ñoom boo leen koy dénk booy génn rek ñaay koy jaay sànq ko ñëwee dañuy dajalaat pour jox la waaw waaye maam Cerno ko sëñ Tuubaa sàmm na ko ba dara yàqu ci suuxat na ko ba mu yokk waaw ndax euh, bi mu dellusee ñi mokkalu toon alxuraan fekk na ñu mokkal ba bindi kaamil ñi mokkaloon toon fekk na leen ñu xam ñu am xam-xam waaw Lo radiyallaahu anhu daan wax ne ñun Ceerno suñu sëriñ ndax bi muy bi bii dem da tàmbaleegu njàng xam-xam te bi mu ñëwee lu mu laaj xam nañ ko hmm. waaw man loolu mooy amaana bi surtout surtout bi bi demee barke bi ne mbooloo mi ne lépp mu yilif ko hmm. jéemu ko coup d'état au contraire dafa wut juróom dafa wut fukki nit yu mokkal alquran bu ñu xëyee jàngub kaamil jàng junni salaatam tuna jéenaa bu ngoonee jàngub kaamil jàng junni salaatam tuna jéenaa ñaan sëñ bi dem ak jàmm dikk ak jàmm ñaari kaamil yooyu ak ñaari saatantu ñaari junni saatantu na naa yooyu musta manqué ba sëñ bi ñibbi si kon ko kuritaawu hmm, ko yaral ka njabootam hmm, euh, taxawu ko waaw taxawu ko moom dafa liggéey borom daal dafa liggéey surtout euh, yebu ko woon yabutoon sëñ tubaa mosu ko def morom malgré na sonal na ko lool teewee na bis sëñ tubaa yëpp waaye nag mosu ko def morom waaw Euh, kilifa rek la ko defoon naka jekk kilifa la ko defoon waaw bi mu fi jógee téewul bi sëñ bi moo njëkk a ñibbi Touba moo ñibbi moo njëkk a ñibbi àjjana diir bi fi maam Thierno naa ginnaawam tam sàmmal na ko njabootam sàmmal ko yoonam waaw euh, am na lu bàyyi laa daan wax sëñ Touba ba doon koy fattu noo koy walal bëtam loolu ñu bari man ba ma ko déggee comprendre mu ko waaye bi bi ma déggee histoire 14 et 18 bi ma ko analysé laa xam ne mooy loolu ndax 14 et 18 sëñ bi dane du joxe soldat te tubaab yi ne bu joxewul soldat ñu yóbbuwaat ko ci biti réew te booba mag la te wérul borom daaru moo fexe bañ jox ba joxe soldat yi moom moo jël engagement ko sëñ bi itam ci mbaaxam ak matam mu def li nga xam ne ku nekk war nga koy nangu léeg-léeg mooy nga nangu ay nit woo mat la boo demee ba sës nga nangu ñu woo mat la waaw nga xam ne yow amatoo xalaat amatoo wax da ngay wéy ci waxi ñeneen ba ngay génn situation boobu waaw yooyu it mën nañ ko jàng ci moom mhm. ak nu ngoo liggéey gi ngoo liggéey ndax ah, bi ñu jógee Mbàkke Baari ñëw ñëw ñëw ñëw Mbàkke Bawol lu ñuy jënd bitig dañ koy dañ ko dañ leen koy double prix lañ leen koy jaay waree jar fukki dërëm ñaar fukki lañ leen koy jaayee bi ñu ko ko jàmbatee mu ne leen ba euh, euh, jënd leen rek ginnaaw lu ñuy bay la ren lañ koy mujjee jënd bi mu jógee Daaru naan dem Mbàkke Kajoor ci ndigalu Sëñ Tuubaa sanc fa waaye sëñ Sakho nee na sàq yi mu bàyyi fii ci Daaru Marnaan ñaari at dëkk yu ndaw yi ne foofu yëpp dëkk mboolem dëkk yi wër Touba ak Mbàkke foofu ci la lekk ñaari at waaw nu ngoo liggéey la nu ngoo liggéey euh, ngoo jaamu yàlla xam ko dund lu ëpp juróom-ñett fukki at ak booba ndox ni mu jafee te benn yoon la ma sa tiime te booba ndox mi mbaama koy sëf mbaam a koy rooti ak mbaam ni mu yeexee ak li muy yenu di ni mu woyofe te ay 40 kilomètres dañ ko daan jëlee ji waaye musta te daan wax ne euh, euh, daan wax ne euh, loolu sëñ Sidi Moxtaar yal na yàlla taas ci barkeem yokk leeram moom moom ko sa nettali mu ne borom daal daan wax ne seeli seeli njàpp julliwut mooy njàpp mu màggat julliwut waaw nga xam ne waxtu wu ne da koy jàppal hmm? kon nu nga woon a yàlla la te te te eh, eh, maanaam am la nga am am am la nga bëgg itam te taxul nga wàcc loolu yi mën nañu koo jàngee ci moom waaw ndax moom juróomi at yi mujj ci dundam la demul tool te sëñ Mourao Balla moo ko wutu ci loolu benn bis mu woo ko jox ko mungaas ne ko Modou mën ngaa jël mungaas mi tool tax tool yee taxoon ma wut ko te dox nga sama digganteeg tool yi te booba dara du jeex waaw biñ nee biñ nee biñ nee mag Kajoor xëti yi képp xëti yi waaye suñu saako nee na buñu bu ñu ab saako la ñuy lekk buñ ko bënnee di ko sotti mu ñu topp ci di ko for fa fépp mujj buy rot am xëti di ko for hmm. te noonu la nag yi bare woon mbaam yi daan yóbbu dundub sëñ Tuubaa bi njaareem téeméeri mbaam la daan doon nga xam ne bu ñu agsee njaareem ay midi yooyu bu ñu ŋaaxee dëkk bi day mel day xottu kon waaye taxul mu wàcc daa continuer liggéey rek liggéey teg rek liggéey bi itam ak ak wut gi mu def ko ngir bañ yàq ndax nit ñi am na ñooñ dañuy liggéey ni mbaam di yàq ni golo loolu it baaxul bañ yàq bañ yàq gi tax na boo boo ko soxlaa man caa jariñu boo boo boo boo faj gàcc jotee itam nga mën caa faj gàcc waaw keneen keneen soxlaat nga mën ko caa jariñ ndax am na fi bu ñu déclaré ne xiif dafa am moom moo lebal tubaab bi ñeenti canton moo leen lebal euh, am na fi bu nga xam ne itam moom bi sëñ bi door dem rek niñ ko lime ñett dàgga dàggay koso dàggay sukóori euh, dàggay daar mussi dàgga ju ne euh, fukki fukk nga fa waaw te am fukk daanaka boo koy seet 30 tonnes dugub lay doon waaye loolu lépp bi nga xamee ne xiif bi am na daf ko daf koo jox suñu Modou Moustapha ñu séddalewaat ko murid yi waaw kon ba ci sàq mi mu lebaloon tubaab bi am benn kilifa bu bu bu ab lemp sànku ci loxo ñu bëgg koo jàpp ah, dane moom damaa ko gën a gore dane tubaab bi damaa ko gën a gore maa ngi ko lebal sam sama dugub fayu gu ma bëgg a jàpp sama doom nañ ko fayu ko ca dugub ja xam kon dagg na bu mu gàcce foofu waaw daal di wax lu am xorom daal moom ki nga xam ne moom moom la lemp bi sànku ci loxoom mu ne moom moom koy xamoon naa ne ñàkkul lu xew ndax moom fii la daan romb du nuyu mu ñëwee toog rek ndax affaire bi amee daal di ñëw daal di ñëw daal toog dematul fenn loolu la laa ma sa dégg mu di la woon nee mu ne waaw mu koy xamoon naa ñàkkul lu xew ndax fii la daan romb du nuyu ba mu ñëwee toog rek laa xam ne ñàkkul lu xew waaw kon moom li ñu mën a jàng ci moom bari na waaw bëgg sëñ Tuubaa nag bëgg ko lool bëgg ko fonk ko ormal ko waaw daan wax ne damaa bañ tubaab te teg ko fu wér ndax tubaab daa bañ sëñ tubaab te euh, ku bañ sëñ Tuubaa moo bañ la damaa bañ tubaab te teg ko fu wér ndax sëñ Tuubaa daa bañ tubaab te lu sëñ Tuubaa bañ ma bañ ko waaw bawol gi képp euh, bi mu fi ñàkk ba nu ngi wutoon Daaru Musi bokk bawol ba léegi xam nga Daaru Musi njaambur la bokk booba it dara euh, bi sëñ bi ñëwagul mag ñu baax ñooñu fa eh, nekk tey eh, eh, jébbalooguñu mm-hmm. booba bawal dëkku cedd réewum ceddo la waaw waaw ni mu ne mu ni ñu takkatoo ni ñu takkatoo foofu ba bañ jàpp jàpp sëriñ bi yóbbu ko te kenn yëgu ko nee na loolu bawal rek la mën a xawee feneen fu mu doonoon faaw mbokk dana ko yëg wax ko ba pexe moomu du sotti waaye loolu lépp mu ngi ko basé ci bëgg sëñ bi rek waaw bëgg sëñ bi rek ndax moom ay qualité la amoon qualité yu baree baree baree baree baree bare waaw mbooleem qualité yi ne ci sidna Abubakar sidna Omar sidna Ousmane ba sidna Aliou bu ci ne moom jël na ca waaye daa mel ne ñeenti saxaaba yi la sëñ la la suñ borom dajale ci borom daaru defal ko sëñ Tuubaa waaw ndax sidna Abubakar ci mbëggeel gi sidna Omar ci njàmbaar gi sidna Ousmane ca tabe gaak wërsëgu yaatu wax sidna Aliou ci yàggee ànd ak sëriñ bi yàgg yàgg ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaw ndax Sidna Aliyu bi sëñ bi wootee bi yonent bi sa alayhi di woote fekk na ko moom mu yaroo ci kër bi bar kër yonent bi da rakkam waaw moo tax ñaan lam yashrabil xamra lam yasjud ila sanamin moom la loolu la bi wax maam Thierno itam ci ndawam la ànd ak sëñ Tuubaa waaw di mbokkam itam